ci interpellé c'est une parenthèse Aminata Touré bu bëgg-bëggam ant woon mooy nekk tey présidente assemblée nationale moom yàpp na dañu war dissoudre assemblée bi ni sur le champ waruñu sax xaar parce que amatul légitimité fi ko teg mooy les sénégalais ont choisi un autre président boo xam ne bokkul ci seen ay loolu dans le principe mun nañ ko nangu maanaam président mun na ne majorité bi nekk assemblée nationale n'est pas conforme avec li ma soxla def dama koy dissoudre demander sénégalais yi ñu ma wala ñu voté boog créer une nouvelle majorité boo xam ne dina mën a ànd ak li ma bëgg a def loolu c'est légitime je dis c'est légitime. Mm-hmm. mais il faut que mu légal. ah pour mu légal foog mu am deux ans. merci dégg naa sama sœur Aminata Touré mu naan le 31 juillet war nañ mu dissoudre assemblée. <laughs> dégg naa ci leen faloon le 31 boobu. dégg naa ay ñu jàng euh, droit di ko jàppale ci loolu. alors que erreur la nga jàpp. c'est une hérésie yoo xam erreur. Hmm? oui la loi est claire la loi parle de législature. bi ñu leen installé lay tàmbali. la loi ne parle pas du mandat des députés il n'a pas dit aussi élu waxuñ ñëpp bu ñu après deux ans après les élections ou deux ans après l'élection des députés. Mm -hmm. ou deux ans après la la décision du conseil constitutionnel bu ko loi bi waxoon deux ans après la la décision du conseil constitutionnel mooy après tous les recours. arrêté ak euh, décision boobu conseil constitutionnel génne foofu mooy date de départ bi mhm. bu fekkee dañu waxoon ne après l'élection jour bi ñu paree urne yi mais loolu élection amagu fa sax parce que amagu résultat officiel mhm. Mhm. donc maanaam ça peut pas être la date du 31. pas du la législature mooy le jour où on installe l'Assemblée nationale on élit le président et qu'on reçoive les députés parce que balaa ñuy commencer députés yi dañ leen di dañu leen di woo nominalement. Mhm. dañ leen di installer suñ leen installer ñoom seen bopp ñun tànn seen président en commençant par le doyen d'âge bu ñu paree jour boobu la législature bi tàmbali. di commencer d'accord parce que loolu leer na le mu ngi commencer jour bi ñu ko installé loolu mooy législature. Mhm. mu ngi fin bi nga xam ne leur pouvoir jeex na maanaam leur pouvoir yi nga xam ne da prendre de prendre des décisions mhm. jeex na pouvoir boobu. mën na jeex de deux manières mën na jeex par une dissolution mmh. donc la législature et écourtée mun mhm. na jeex à terme boobu dem nañ ba mandaa bi nekkoon cinq ans date bi ñu leen installé yeneen cinq ans yi jeex ñu ne législature bi jeex na li la koy won Mamadou Mamadou Awa Ndiaye mhm. élection législative dañ koy organiser toujours des semaines avant la fin de la législature lu tax ñuy def loolu dañ bëgg dinañ organiser élection yi dañ def recours yi décision résultat dina génn mhm. bañ mën a installé les nouveaux députés jour bi élection yi di jeexee mais il peut y même un écart mhm. par exemple si le président de la République qui prend un décret pour fixer le début de la législature qui n'est pas forcément la fin de la législature antérieure mhm. bii mun na jeex le 30 entre temps le président décide ne la session sera ouverte le 12 du mois suivant ou le 5 du mois suivant. entre temps. entre kan mooy député bi. amul ah. la preuve. ñu la jeexal na ñi ñëwaguñ. ñee seen salaire jeex na jour bi ñu seen <laughs> seen mandat jeexee. Mhm. ñii seen salaire mu ngi commencé jour bi ñu leen installé. installé kenn du fay salaire député fekk dañ la faloon. d'accord kenn du ko jox Macron fekk dañ la faloon lenn rek la am. Mhm. immunité. day continuer di ko yor boobaa baax keneen. non day am immunité non non ki ñu fal mooy. ki ñu fal ok d'accord d'accord bu conseil constitutionnel décidé ne Babacar Gueye élu député. Mhm. circonscription de Kaffrine ce jour-là dama am immunité parlementaire ba bañ ma installé. dafa am lu aussi lu ko expliqué c'est pour protéger le parlementaire contre l'exécutif. Hmm. imagine ñu ne amuloo ko. Mhm. caay-caay gi nekk ci euh, exécutif. xalaat ne mën nga nekk menace. mu ne la xarab jàpp la dugal la ci kaso bi boo doo siégé. Mhm. fekkee amoo immunité moo tax nii di protéger